li am mbégte bu baax ci li ñu accomplir tout de suite mooy suñu devoir citoyen ma am firnde ne ma am firnde ne li ñu fi wax yëpp ak engagement bi ñu am yëpp yéene bi

génération bu leum ñoo échoué kon may wat rek ci suma jëm ju ñàkk solo ji que ñu bayyi xel sénégalais yi bayyi xel jafé jafé yi nga xamné sénégalais yi ñu ngi koy jankontel et aujourd'hui c'est un jour exceptionnel may wax tout le temps ne buñu démé ci élection élection nekul moment xëccoo xeex ak xuloo bu ñu ci yeggé ba nga xamné ñu ngi def suñu devoir citoyen moment de joie le wara nek parce que ku nek day wané né réew mi may na possibilité mu participer ci lu doxal Sénégal élection bi nak ñuy teug ci dimanche bi dama ci déllu wat rek élection la bo xamné bu crucial parce que dana permettre ñenn ñi yoon bi ñu nekk ñu continuer ko mais dana permettre ñeneen ñi ku ñu mel ni ñun ñu japp ne yoon bi baaxul trajectoire bi lu ñu war a corriger la ñu daal di koy mën a def contrôler l'action du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale mais surtout impulser dynamique bi ñu bëgg à travers la cohabitation mais loolu nag pour mu am il faut que nous ci réew et euh, jàmm jooju ñun ñëpp ñoo cultiver ma ciy profito rek di remercier toute la coalition Samasakad pour l'esprit qui a prévalu tout au long de ce compagnonnage ce leadership collaboratif bi nga xam développé Je ko maa ngi ci sans exception ni beaucoup de conférence des leaders mais mention spéciale à la presse vous la presse vous avez fait un travail extraordinaire dans des conditions parfois extrêmement difficiles mais vous savez que de am sacerdoce pour vous. et vous êtes en train de réaliser ce travail en définitive li ñuy fii ak ngoon mooy combat bi ñu ne sumb nañu ko diggante manipulation ak liggéey combat bi ñu ne sumb nañu ko diggante fen ak dëgg sénégalais yi nag ñooy tranché et incha allahu rabbi lu génn ci urne yi danañu ko nangu lu génne ci urne yi danañu jàpp ne loolu la sénégalais yi jàpp te loolu la sénégalais yi bëgg du nu tee nag ñu continuer liggéey bi nga xam ne Nous ngi ko doon def di wax rek il y' a beaucoup d'irrégularités qui ont ne remonté nañu ko un peu partout dans le pays euh, je crois que nous ngi ci pour corriger ko mais li am solo rek mooy ne ngeen nous ne état d'esprit bi ñu am ci waa sàmm sa cadeau, état d'esprit ñu war gagner élection yi et ñu avons a yóbbu ci virage bu bees ci beneen trajectoire bu am solo maa ngi leen di gërëm di leen Mais vous savez, euh, le discours du président ne peut être qu'un discours rassembleur. Et loolu la ñuy xaar ci moom li xaar ci président comme li ñuy xaar ci premier ministre ñoom ñoo yore réew mi la sénégalais yi teg réew mi ci seen loxo depuis huit mois. donc li ñuy xaar ci ñoom rek mooy discours boo xam ne ñëpp seen njaboot la bokk.

Les sénégalais yu am sénégalais yu am yéné xamné mën def liggéey bi kon discours président de la république dañ koy rafetlu parce que c'est un discours euh, buy wax kenn ku nek la li nga xamné moy sa ci mais surtout discours bi mu wax jëmee ko ci ñu dal qui ko ci réconciliation ko ci kenn ku nek sa ngir Sénégal je crois que lolu lañuy xaar ci et depuis un bon bout de en fait depuis un moment on sent véritablement que le président de la République mu ngi sol manteau président et loolu la xaar ci moom et on espère que le premier ministre comme Berki Demb, gis nañu taxaway bi mu am ak wax yi mu dellu ginnaw japp nañu né dana jël benen yoon muy yoon biñu ñu doon xaar yoon biñu bëgg ci réew mi muy jamm ak dal je vous remercie. depuis suba président waxuñ len wala sax signaalu len benn bo xamné incident bu am ci bureau de vote. il y en a beaucoup en fait on a une cellule bu ñuy euh, remonter des incidents euh, mais je crois que c'est des choses qui ont ramené l'administration territoriale à l'obligation de corriger ça c'est des bulletins qui manquent par-ci euh, c'est des euh, bulletins qui manquent par-là mais je crois que lolo, il bokk ak élection l'essentiel c'est ñu corriger on a vu que le le le le taux de participation n'est pas encore élevé 10% euh, aux alentours de 11 heures. Euh, c'est vrai que jamono bi euh, les choses sont très compliquées pour si dara nekk ci réew mi metti na nit ñi nañu mais nañu xam ne kenn ku ce devoir mooy jóg dem voter ji ak lu réew mi metti réew moomu metti moo tax ñun ñu engagé wu pour bëgg ko soppi mais nak bu nit ñi toog seen parce que bu ñu toogee seen kër bu ëllëgee du ngeen bokk ci ñi war a mun a wax te ñi war a wax ñi dem voter ji euh, Amnaya Carnet yaakaar à 18 h nous mëna clôturer le vote euh, fui ak 20 h les tendances de génn et de grâce encore une fois comme nous ko la dernière fois on sait qu'il y a des euh, supports qui ont préparé des résultats ngir yalla nañu dimbali def dal résultats ci bureau de vote yi la mën a résultat yi ci PV yi la mën a résultat yi du statisticien moo koy résultat yi sénégalais yi ñoy dugg ci mbañ gatch gi voter pour ñi nga xamné ñoñu lañu la et ñoñu lañu wara bëgg a assemblée nationale à travers les différentes coalitions ma ngi leen di sant merci. merci